ay ca mbokk yi wa dem na këng wax mag dañ nañ taali dàgg war mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb compétition bi ay ndaanaan ñoo fi nekkoon ay ndaanaan di compétir ay ndaanaan di toog ba ñaari ndaanaan finalu muy Emine François Gomis ak Serigne Ndiaye 2 bu Faas mbokk yi Franc moo la féete ndijoor Serigne Ndiaye moo la féete càmmoñ arbitre bi sifla na mbokk yi daw na jëli ko Franc Serigne Ndiaye daw na jëli Franc jàppante nañu tëru na ko bañ na bañ jàpp na Franc yegg nañ suuf jugaat nañ ñu ci bëre laa ilaaha illallaah ñu ngay wure ñu ngay wure waay Serigne Ndiaye daan na Franc jël bu rëy laa ilaha illallah da koo xar yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf eh. waay Serigne Ndiaye waay eh. Ibrahima kaay kaay baal ma façon bëre bi façon bëre bi façon bëre façon bëre sant yàlla bu baax sant dem final am sëriñ am am franc ndeysaan may leen gars yi dal leen rek gars ndeysaan ndeysaan Franc ñëw na Franc sportif ba ndeysaan dem na def leen ko ndànk may leen ma ma dimbali leen ma Serigne Ndiaye Ibrahima taxawal la ci mikaayu Serigne Ndiaye bi kenn mënul téye sa bopp ndax bëre bi Serigne Ndiaye bëre mu bëre ba daan amateur yi jugut ndax fason bi bëre bi Serigne Ndiaye indi ñu bari xamuñu ko woon ci moom mën naa wax li mu bëree ni mu bëree Serigne Franc Serigne Ndiaye nuyu naa la Serigne Ndiaye façon bi nga bëreeg Franc ban bëre nga bëreeg Franc. non bëre ay mbër la sportif la jeune chose beaucoup xam nga champion la dimanche passé la bëre tey bu ñu compétir champion la wax dëgg yàlla mënu ma wax nag suñu borom moo dimbali rek mënu ma kenn sant yàlla bu baax sant samay entraîneur ñu ngi entraîné waaye ngi di Fass sama mbaa tabaage mu ngi France yaakaar dafa jàmm sama mooy jaraaf xam nga Père Seck xam nga arbitre daf na bëre rek. arbitre daf na prime nga agressé Franc. la ma sax samay entraîné ba pare. parce que ma mu ma dara dama teg ay loxo ñu may entraîné ma tàggat man ma sant gërëm leen. dinaa ko daan Kante Boña Wakam ma koy sant bu baax a baax a baax Kante Boña Wakam Bodi ma koy sant bu baax gërëm xam nga xam nga amul kati ma koy sant bu baax di ah, ko ñaanal jàmm ak salaam xam nga Guèye waa ngi di Fass yëpp su ma Abass Ndoye ma tawaage ma nga seen sama gars yi ama seen bay quoi li bëre bi nga bëre Serigne bëre bi nga bëre Serigne Franc arbitre def na bëre bëre bi nga agressé ko Franc champion la lan moo tax nga nga bëre noonu bu njëkk da nga ko daan xaar mu ñëw non Franc champion la mbër mbër kaamil la Franc day bëre waaw mais sant ñëpp daal sant ñëpp sant ñëpp nag di la nuyu baax yow sant